ci ci dossier bi nga xam ne moom mooy le le dossier du du. généralement mu may noonu leen moom benn concession dama la koy def. tout de suite mm-hmm. non dama lay defal tout de suite concession. Mm-hmm. réew bu Sénégal réew boo jàpp politicien bu nekk candidat à la présidentielle ñu ne justice bi baaxul États-Unis gis nga. France Fillon. mais à quelques à quelques jours d'une élection présidentielle où il était donné favori. Mm-hmm. la justice daanoon na ci kawam. moo ko yàqal waaw te te pourtant les Français ne se sont pas indignés. Nicolas Sarkozy na Français yu indigné wu. non ce sont ah, ah, ses partisans mais pas l'opinion publique. Nicolas Sarkozy il est depuis cinq ans il est depuis cinq ans poursuivi. il est même il la France ne s'indigne pas l'opinion publique en tout cas. Hmm. ses partisans bien sûr. xam nga lan moo tax ma ne la euh, démb dama fi recevoir maître Doudou Ndoye. Hmm. Euh, mu ne euh, le réquisitoire. supplétif bi procureur bi bi bi bi dugal concernant l'article 324 corruption à la jeunesse on a fait un, corruption, du, on, de la jeunesse. Cor, corruption de la jeunesse on a fait du mélange entre du pénal et du civil bu fekkee ne visé wuñu ko dans l'ordonnance Maham Diallo visé wu ko woon dans l'ordonnance de renvoi waruñu ko woon waruñu ci woon condamné ki nga xam ne moom mooy euh, l'accusé Ousmane Sonko tey ma dem vérifier euh, les motifs visés dans l'ordonnance de de renvoi avec peine d'ailleurs parce que doo xam ban ban ban version moo moo moo baax mais celle-là mais celle-là je me suis je me suis c'est la bonne version alors ñu motif yi ñu yu ñu waaw waaw waaw j'ai vérifié. Maïmouna Ndour Faye que ordonnance de renvoi bi bi ma yor c'est la bonne version j'ai j'ai fait les vérifications nécessaires alors ñu vi ñu viser ñu ne vu l'article 175 du code de procédure pénale décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar euh, statuant en matière criminelle pour y être jugé conformément à la loi des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitance, incitation à la débauche, diffusion dimanche contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième, c'est-à-dire euh, Ndeye alors donc loolu nekkul ci ordonnance de renvoi bi ñu ñëw ci jouru euh, jugement bi ñu dugal ci euh, ci dugal ñu ñu intégré euh, corruption de la jeunesse sur la base de l'article 324 jugement final le, le juge mu euh, euh, les deux sur les faits de menace de, de mort mu disqualifié les faits de viol mais mu retenir euh, la, la, la corruption à la jeunesse sur la base de l'article 324 euh, euh, du code pénal et pour cela tous les deux écopent d'une peine d'emprisonnement de, de, de, deux ans. Est-ce que cette décision de justice, est-ce qu'elle est légale? sànq bi ñuy waxtaan soo seetloo da nga ma wax affaire mandat man la man man lu juge wax man moom laay jàpp xam nga lu tax man du ma juge léegi nag mun naa bañ d'accord ak juge bi ma def appel juge d'appel wax su ma d'accordul ma def cassation pourvoi cassation su juge bi waxee nag man ni ci juge bi li mu wax man ànduma ci waaye nag juge dans une démocratie. mais le juge xam na code pénal bi gis na ordonnance de renvoi bi. non dans un état le dernier mot revient pas au journaliste pas au professeur pas au politicien pas au ministre le dernier mot revient au juge d'abord loolu dañ ko jàpp ba pare Isaac Fossé premier président cour suprême au Sénégal xam nga loolu doon wax Senghor mu ne ko ñun membre cour suprême même nos erreurs s'imposent à vous même nos erreurs s'imposent à vous ça veut que juge lu mu wax loolu la ñuy jàpp d'abord premièrement deuxièmement ay mun man damay dégg Sénégal ñu bëri fit yoo xamante ni décision bi amagul de mais ñoom dugg nañ ci motivation yi analyser décision bi wax lépp te wax nañ ko te décision amagul de man de gisagu ma ko man bis laa décision bi lan laa gis dispositif laa gis dispositif mooy fi nga xamante ni juge bi fa lay wax euh, kii peine bi bi muy condamné décision amagul ensuite gis nga euh, ordonnance de renvoi bi nga xamante ni le juge d'instruction daf ko jël mais ordonnance de renvoi boobu sànq wax nga li mu wax dafa viser tout ce qui est d' abord infraction li aux mœurs. Mm tout ce qui est infraction liée au mœurs. cité ci viol cité moo tax man la ndax am nga bonne version bi. Oui. pratique corruptrice de la jeunesse dans l' ordonnance pratique corruptrice de la jeunesse donc ordonnance bi visé na ko bu baax procureur bi ci réquisitoire am wax na ko. ensuite ah, supposons même mu bañ ko wax noo noo xam xam nga damay raisonner. Mhm. supposons même ordonnance bañ ko wax ne man daal ordonnance bi viol rek moo ci nekk waxuma affaire pratique corruptrice de la jeunesse waxuma incitation à la débauche waxuma ma viol rek laa wax le juge pénal c'est pas le juge civil en matière civile la procédure accusatoire man ak su ñu seexee problème civil man ak yow ñooy indi suñuy preuve ñooy conduire juge bi daf ñuy xool rek di arbitrer. le pénal du loolu la procédure inquisitoriale juge ay fee nga koy jox rek en pénal moom moo koy qualifier après bu neexee même dama ne même su fekkoonte ni ordonnance bi ci boppam waxul pratique contributive te wax na ko soo buggee demee naa la envoyé version. mais mais mais xam nga wax na non dama ne d'abord dañu bëgg ñu jàpp ne wax na ko. non dans le corps. pratique dans le non. oui dans, dans, dans le corps de l'ordonnance de l'ordonnance mais dans le dispositif de l'ordonnance de mise en accusation non dafa ma droit dans la mise en accusation au final visé wul loolu te même Euh, dans l'ordonnance de renvoi les tous tous les articles visés dans l'ordonnance de renvoi mais, mais, et puni par les articles deux cent quatre-vingt-dix quarante e quarante-six euh, il a mis trois cent vingt-quatre. vous êtes passé de deux rois <laughs> trois cent vingt-quatre. il a mis trois cent vingt-quatre. boobu tam daanu nga. <laughs> il non non da ngay d'accord non non daa daanu ma non non dama foogoon ne boolew ko si. donc trois cent vingt-quatre. Euh, trois 60 euh, et suivant du code pénal et la loi 2020-5 euh, du 10 janvier 2020 qu'il échait d'ordonner le renvoi des susnommés devant les chambres euh, criminelles du tribunal de grande instance de Dakar pour y être jugés conformément à la à la loi. d'accord nga léegi waaw waaw d'accord wàcc nga. wàcc naa. muy muy wàcc. <laughs> wàcc naa wàcc naa. donc nit ñi dañuy wax yenn saa yi man damay daal nit dañu dëgër fii dañuy wax liiruñu ordonnance bi. dañuy wax décision amagul ku nekk di wax sa xalaat mais loolu sax wax naa la ko dañu nekk Sénégal foo xamante ni la parole n'est plus neutre kuy wax sa xol ngay waxee man nag dama gëm ne man man en toute humilité même su may wax sama xol dama bëgg li may wax nga teg ko ci yoon teg ko ci droit teg ko ci ay fait su fekkee te ne uma argument de droit ou de fait ma noppi donc le juge d'instruction a bien visé les articles yi nga xamante ni juge bi moom la appliqué dama ne woon sànq dama ne même su ko gisewul laa wax te visé ko na leer visé na ko ma ne même su ko visé wu loolu le juge pénal il est libre d'apprécier les faits yàq mais dama bañ ñu ne Ismaël Bayor moo wax ne ne ne que juge bi visé wu ko te loolu te no dama bëgg wax ne juge d'instruction na ko ba mu leer naññ d'abord loolu dama bëgg mu leer yow yaa ko lire article 324 bi attentat aux mœurs par incitation à la débauche ou corruption de la jeunesse attentat au mœurs par incitation à la débauche ou corruption de la jeunesse attentat au mœurs par incitation à la débauche ou corruption de la jeunesse le juge d'instruction l'a bien jugé dans son ordonnance juge bi bi mu ñëwee chambre correction chambre criminelle mu ne ah man daal acte sexuel yi ñu wax nag dëgg la am na constant na loolu kii tamit xale bu ndaw la woon constant na li ñu wax yépp am na waaye nag man de juge loolu man du ma ko jàppee nag viol man dama koy disqualifier corruption de la jeunesse la ndaxte kooku amuloon 21 ans xale la woon su amoon su su nekkul su amoon plus de 21 ans nag corruption de la jeunesse du taxaw booy xool leneen attentat à la pudeur wala nga wax lu ne agression sexuelle mais leneen mais fii li mun am moins de 21 ans moo tax juge bi retenir loolu mais même soo amee juge boo xamante ni da nga ñëw ñu ne kii dañ ko poursuivre pour viol mais juge bi su fekkee ne daf la bëgg a condamné pour écarter de mu jeex. mënul wax dafa violé. ah su fekkee ni moom indépendant parce que il n'a pas il n'a il a disqualifié les faits tout simplement parce qu'il n'a pas assez d'éléments pouvant prouver le viol il l'a acquitté parce qu'il a considéré que y a pas de menace non juge bi juge xam nga Sénégal parce que loolu dama ciy mais dafa mel ni waa ji warul non non c'est-à-dire on on on kon yow d'accord ne article 324 bi nga xam ne code pénal Sénégal moo ko prévoir wàccul. dundoo euh, démb nee na une loi coloniale obsolète. non xam nga loolu qualification mais dama loi bi wax na ko wala waxu ko. ñu dem jëli ko génne ko. non dama loi bi mu ne acte lan la. mu ne c'est une loi coloniale obsolète. lii ñu ngi ko introduit ci code bi si ma mémoire est je l'ai dit sous réserve de le contrôler ci code pénal initial donc loolu ay waxu colonial ay waxu caaxaan la lii lu bees la loo xam ne dañ ko dugal ci code pénal parce que code pénal dañ koy moderniser chaque fois dañ koy réformer ci lañ ko ci dugal c' est une réforme du code pénal c' était pas là pour le avec le code pénal donc loolu waxu caaxaan la donc loolu su juge bi ne man man kat juge d' après mon intime conviction élément yi ma gis am na ay pratiques sexuelles am na ay rapports sexuels yooyu yëpp am na waaye man mënuma ko jàppe man juge viol man dama koy disqualifier en corruption de la jeunesse mais quand même juge la boo xamante ni au moins am na d'abord euh, sincérité wu intime conviction ba nga xamante ni dafa def li nga xamante ni mu mu dal conscience am froidement mënoon nañu ne viol la mais mais gëmul ne viol la li mu gëm la def léegi lu tax ñu ne ko yow gëmoo lool dugg ci biir conscience am moo tax ma ne attends fii damay profité. parce que le dossier a été fortement politisé. parce que pendant deux ans dañoo ne dañoo ne daf ko violé. def ko teg ñaari pistolet à la à la la à la tempe. juge bi ne man loolu d'accord ma ci amul. à la fin de la fin on nous dit non wu ko et écope d'une d'une d'une condamnation